kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bi jëkk ci suratul kuwirat alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi yeesalaat sant suñu boroom mi ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem loole it nekk ci biir shahru ramadan di weer bi mu wàcce woon alquran mu am leneen lu ci dolleeku di bë lii di bëccëgu aljuma nga xam ne mooy sangu bis yépp rawatina la nga xam ne mooy gannaaw takkusaan xam ni boroom xam-xam yu jëkkee dañ ko daan ittewoo lool gannaaw takkusaan ajjuma daawuñu ittewoo lu dul toog di zikr ak di ñaan su ko defee yooyu yépp ay ngëneel la yu daje la yal na yàlla dëppale ñu ak moom ci nangul ñu ko kon incha allah su dee ni Cheikh Ousmane pare na mën nañ jël suñu bind bu jëkk بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنبرمني إذا الشمس كورت bis bi nga xam ne jant ba daan ko muur leeram ga dem wa iza nujumun kadarat lii nga xam ne it mooy biddiw ya ñoom it ñu fay leen wa izal jibaalu suyirat la nga xam ne mooy montagne ya ñu doxloo leen wa izal ashaaru utilat la nga xam ne mooy giléem yu ëmboon ba nekk seen fukkeelu weer ñu neenal leen sàggane leen wa izal wuxuushu xushirat ak la nga xam ne mooy njaa àll ya ñoom ñépp ñu dajale leen wa izal bihaaru sujjirat ak bis bi nga xamee ni nii géej ya dana nekk lu ñu taal wa izal nufuusu zuwijat ak bis bi nga xam ne bakkan ya dañ leen lënkale wa izal maw'udatu su'ilat mooy bis bi nga xam ne kañu suuloon ca xale muy jigéen xale yi jigéen yu ndaw yi ñu suuloon dañ leen laaj bi ay zanbin qutilat moomoom ci ban bàkkaar ngeen def ba ñu rey leen wa iza suhufu nushirat mooy bis bi nga xamee ne nii kayiti jëfi jaam yépp dañ ko tàllal wa iza samaa'u kushitat bis bi nga xam ne asamaan dañ ko dañ ko ñori lenn du nekkati ca moom wa iza aljahimu su'irat bis bi nga xamee ne nii sawaras jahannam des na ko taal wa izal jannatu uzlifat bis bi nga xam ni aj ajjana des na ko jegeel alimat nafsum ma ahdarat ker keroog la doomu aadama di xam lan la teewal bis penc mi ngi noonu mbokk saar bi ñu jàng ak saar bi topp ci gannaawam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man sarrahu an yanzura ila yawm alqiyama ra'y al'ayn falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u infatarat wa idha as-sama'u inshaqqat mu ne ko bëgg a seetaan yawm alqiyama te dema góofa del jàng saar bi ñu toll ak bi ci gannaawam ak ba nga xam ne mooy suratul inshiqaq bay ñëw gannaaw bi topp bi ci gannaawam suñu borom day wax ay mbir yu yéemi yoo xam ni dafay am bala yowmal qiyaama am gannaaw ba it mu wax mbir yu yéemi yuy am ci bisu yowmal qiyaama mu séddale ko ci juróom benn waat yoo xam ne ñooy jiitu gannaaw ba teg ci yeneen juróom benn juróom benn yi wane ni bis penc mi ngi taxaw mooy jant bi suñu borom yàlla daa di koy jël muur ko ca mbokk ni ngeen ko yàgg a déggee jant bi suñu borom yàlla def na ko mu ëpp suñu suuf si lu ëpp un million de fois la ca nekk ci luy takk ci ay mégawatt yàlla moo ko xam suñu borom moo ko taal donte ni scientifique yi dañuy am na lu ñuy wax naan l'extension du soleil fii ak nangami milliard loolu seeni wax la loolu seeni wax la yàlla moo xam kañ lay fay ab ab lampam moo ko taal xam ne kañ la koy fay gannaaw ba it lii di biddiw yi nga xam ne am na ci yoo xam ne ëpp nañ sunu ëpp nañ jant bi million de fois la jant bi ëpp suuf si suñu borom taal leen nga xam ni seen leer ga pour mu yëgsi ci ñun dana def yàlla xam ci ay junni junni at borom bi it fay lépp lu tax moo ko taaloon moo ko fa defoon montagne yi nga xam ni suñu borom jàng nañ ci saar yi passé chamiqaat yàlla ko samp ci kaw suuf mu dëgër lool borom bi mokkal ko ba mu def ab dóom mi ngi noonu mu daal di koy doxloo poussière boo xam ne day dem xur yi nekkoon ci kaw suuf yépp montagne yi daal di koy maasale dal ci mu nekk poussière buy buy dox ji dem da ngay gis ne arab yi bokk na lu ñu gënoon a fonk mooy seen giléem bu ëmbee ba toll ci fi mu war a wasine nga xam ne mooy li gënoon a cher li ñuy jaay ci bàyyi may borom bi nee na bis boobee nga xam ne bis suñ ci day tàbbi ku amoon ay gëléemit talatoo leen neenal nga leen bàyyi nga leen ndax tiitaange nee na keroog lañ jaa àll yépp di daje ñoom it ngir seen tiitaange ga xalaatuñu kenn ku ñuy faddati borom bi subhanahu wa taala nee na keroog la ñuy taal géej yi ca géej yooyu nekk ci kaw suuf suñu borom yàlla subhanahu wa taala li mu def mooy suuf lépp sawara la léeg-léeg ngay gis ay volcan yoo xam ni ci biir géej gi lay am ngi noonu su ko defee suñu borom yàlla subhanahu wa taala day taal géej yépp mu nekk sawara mi ngi noonu borom bi loolu mooy juróom benn yi xew ci événement bis pénc bi tàbbi mu waxtaat ci yeneen juróom benn ba ca jëkk mooy wa iza nufusu zuwijat yowmal qiyaama suñu borom yàlla subhanahu wa taala ñépp ñu bokkoon ay mbir ci àdduna ñoom lay rënkale ñoom lay boole ñoom lay boole da doon ñi nga xamee ni nii dañoo nekkoon ay buur yu saay-saay boole la nga xam ne daawuñu julli mi ngi noonu boole ca daawuñu julli boobee bi ñu paree suuratul mudassir ba wax la suñu borom waajal ñu doon julli xam nañ suñu benn mbokk bu ñuy wax Ousmane Wilane yaakaar na mi ngi ci jàkka ji sax ñu may wax ne ma dafa am seen benn waay boo xam ne daawul julli daawul julli du tout nee na ñu toog ay temps ma gis ko waaju dafa am waxtu mu ne ko sëñ bi lu xew mu ne man daal dama gént nekk ci benn place maag mbooloo mu bëri ñu chey nañu chaîne gi yépp benn chaîne la gu ñu boole ñun ñépp ñu ñuy gurgur di ñu jëmee sawara léegi ñi nga xam ne ñoo ñu yóbbu naan ñii ñooy ñi daawul julli ba ko yàlla yee ca nelaw ya te nekk ma ko ma ala kulli xaal mbokk suñu borom mi ngi noonu doomu aadama dañ leen di lënkale suñu borom dana lënkale ñu baax na lënkale ñu bon na ku nekk ka nga méngool ñoom moom ngay àndal borom bi nee na keroog daañu laaj ñi doon jël seen doom suul ko ban bàkkaar lañ defoon te mbokk xam ngeen arab yi bal àdduna yépp de manière générale dañoo nekkoon ci réer gu tar arab yi bokkoon na seen aada koo xam ne da nga néew doole ñoom liñ daan jàpp mooy masalan am naa ñetti doom ooma lu ma leen dundale donc bu keneen ñëwee daf ma yokk coono dañuy jël rek suul ko am ci ñoo xam ne nii doom bu jigéen lañ daan bañ a gis parce que dañ ne doom bu jigéen moom li lim man rek mooy ñu takk ko yóbbu amulu la njëriñ ca mën nañ ko jàpp def ko jaam mu nekk charge sa dund dañuy jël rek dem suul borom bi nag mu ne daañ leen laaj ban bàkkaar lañ defoon bañ suul leen donte ne dañ ci profito it suñ jamonoy tey ji bari ngeen di dégg avortement avortement avortement mbokk ki ñu ëmb avorté ko ca amagul 4 mois wax yu bari am nañ ko ci borom xam-xam yi waaye la nga xam ne borom xam-xam yépp dëppoon nañ ca mooy bépp ëmb boo xam ne passé na 4 mois yàlla def na ca ruux ku ko rey nit nga rey loolee du mën a am lu dul ci ay borom xam-xam yoo xam ne kenn sikk sàkkawul seen xam-xam ñu xam xam-xam boo xam ne it sikk sàkk amu ca ne xale bi bu continuer ci biiru yaayam dana rey yaay ci bu ca sikk sakk amee amuñu droit di ko def ndax kenn du rey bakkan ci sikk sakk bu dee ne wóor nañu ne soxna si mën na koo jur ca bakkanam du ci des it kenn du rey bakkan bi mu des surtout en Europe da ngay gis ni tey nii médecine avancée xale yu bari dañ koy xool xam ne kii kat bu juddoo anomalie lay indaale day paralysé day nekk mongol day nangam day nangam galaway julit maa ngi lay ñaan loolu nattu la bu yàlla nattu nangu ko moo gën ngay rey bakkan judd na paralysé ni jaamu ci yàlla mën nam kooku ma la yóbbu aljanna judd na daf lay doon jaamu ci yàlla waaye lu mën a doon maadaama moom wóor na ne ëmb bi pass passé na quatre mois bu dara jaral leen ngeen di ko rey dara lu dul extrême ci yegg ci ne day rey yaayam mi ngi noonu loolee da ngay gis ne dañ ko laaj ban bàkkaar la defoon te it mbokk julit d'accord moom dañ ko laaj ban bàkkaar la defoon waaye ku rey beneen bàkkaar ñu dañ la laaj ki nga rey moom ban bàkkaar la def bañ rey ko ndax xam ngeen ne laaj bi yàlla jëmalewu ko ci xale bu ndaw bi su yàllay laaj xale bi waaye yow ban bàkkaar nga defoon waajur ba ko reyoon kooku la ci yàlla jublu naka noonu it képp ku rey bakkan yawmal qiyaama yàlla dana indi ku ko rey daa da waaw sëñ bi yow loo defoon ba ba waa ji rey la waajaa ngi taxaw loo defoon ba mu rey la su boobaa mbokk tontu ba du mën a baax lu dul ci ñetti mbir yonent bi al suñ borom dani lazina la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq ñetti rek war a tax nit rey bakkan te kooku di reyit attekat lay doon keneen ku dul attekat amoo droit rey bakkan quel que soit luñ la def amoo ci droit ngi noonu su ko defee kii ñëwoon fekk sa kër mu rey sa baay wala rey sa doom bu loi islam amoon da ngay dem ca ca loi wax ko fa waaye amoo droit dem di ko rey moom su ko defee loi boobu mooy rey ñett yi mooy tax ñu rey mooy waa ji rey ni nit moo ko tey su dee dafa juum kenn du ko rey waaye moo rey nit moo ko tey mbokki ki ñu reyal su dee ni ñoom baaluñu ko état moo koy rey ñaareel bi moom kat mës naa sëy ànd na ak soxnaam wala ànd nag borom këram ba ba ba pare ñu jàpp ko muy njaaloo ku mel nii moom dañ koy rey ñetteel bi mooy julit boo xam ne julit la xëy xëy génn ci diine ku mel ni dañ koy woo jàpp ko waar ko delloo ko ci diine ji su fetteerloo dañ koy rey ñett ñi rek moom la lislaam may ñu rey leen keneen ku dul kii ku ko rey rey nga ku ñu warut a rey kon ñooñu dañ leen laaj gannaaw ba it suñu borom nee na ca la ñuy tasaare nag téere yi ku ne ñu jox la sa téere ubbil la ko jàng nañ ci suratul xaq waa ji jot téereem ci ndeyjoor naka lay def daw ci képp ko mu xam ha um iqra'u kitaabiya xool leen sama résultat ngi nii man àjjana laa jëm amma ka jaar feneen moom jaar na feneen borom bi it nee na keroog asamaan dañu koy dindi mi ngi noonu mel ni lu ñu xoos wàcce ko amul lenn loo xam ne lu fay nekkati ci ay biddiw ci ay jant ci lépp lu mën a doon lépp la borom bi subhanahu wa taala di ñori mi ngi noonu keroog la suñu borom di di taal jahannama te mooy gaa yi malaaka yi fa nekk nag actionné mboolem lu fa nekk ci ay chaudière lu fa nekk ci ay takk-takk ñoo taal ko nag mu commencé nag di riir di yuuxu di bëmb mi ngi noonu gannaaw ba it suñu borom mu ne ca lañ jege sil aljanna aljanna boobu nga xam ne yàlla ko bind ci loxoom bind ko denc ko ca kaw asamaanam ya yaatuwaayam ba borom bi rek moo ko xam nee na nag événement yi yëpp bu dajee day bépp bakkan dana xam lan la teewal te niñ ko waxe woon ci li passé mooy doomu aadama yi ñi ngi dem ci lënt la nga teewal la ca baax yàllaa ko xam xamagoo ko bakkaar yi nga defoon yan ca baal yàllaa ko xam xamagoo ko amma résultat final ba nga xam ne mooy jëfi doomu aadama mi ngi koy xam keroog ba taxawee ci karoomu kanamu boroomam jalla wa ala yal na yàlla jagleel ñu ca njéggal ak yërmaande
الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
barakallahu fiikum suñu borom mu ne fala uqsimu déedéet day maa ngi waat bil xunnas ca la nga xam ne day làqu aljawaaril kunnas di daw di nëbbu wa leyli ida asas ak guddi ga jamono ba muy dem wa subaxi ida tanaffas ak suba ga jamono ba muy noyyi ay di fenk di ñëw innahu la qawlu rasulin karim alquran ji day waxi yenent la bu tedd zi quwa doon borom kattan inda zil arshi makin nekk ca borom arsh ba ku ñu fa jox place ca mooy kilifay malaka yépp mutain ca mooy ku ñuy topp foofe samma amin mooy mutain samma ku ñuy topp topp ca place boobe amin it doon ku yàlla wóolu wa ma saahibukum bi majnun xam leen ne seen waaji day ca mooy yonent bi nekkul ab dof wa laqad ra'aahu bil ufuqil mubin ca moom day gisoon na ko ca mooy jibril ca gox ya ci loo xam ne lu leer la wa ma huwa ala alghaybi bi danin ca moom day nekkul ca la nga xam ne kumpa ku koy denc la wa ma huwa bi qawli shaytani rajim ca lii day nekkul waxi shaytaani boo xam ne dañ koo dàq ci yërmande yàlla fa ayna tazhabun ma yéen fi ngeen dox jëm in huwa illa zikrun lil alamin lii day nekkul lu dul ak fàttali ñeel mbindaa fan yi li man shaa minkum an yastaqim ngir ku mu sob ci yéen mu sax ci yoonu njub wa ma tashaa'uuna illa an yasha allah du leen soob lu dul daa sob yàlla rabbul alam rabbul alamin mi nga xam ne mooy borom mbindaa fan yi mi nga noonu mbokk suñu borom day waat ci li muy wax alxunnas aljawaari alkunnas lu bari ci borom xam-xam yi dañ koy firi biddiw yi nga xam ni bu bëccëgee ñu nëbbu bu guddee ñu génn daw bu dee bëccëg ñëwaat nañu làquwaat alkunnas mi ngi gën a nekk ci fi bàyyuma yi di làqu ci àll bi donte ne alxunnas mooy koo xam ne ni day nëbbu comme min alxannas li ko borom bi wax ñu muslu ko min sharril waswas alxannas mooy seytaane bi nga xam ni day nekk di jaxase doomu aadama ceew doo ko gis kon mooy biddiw yooyu suñu borom it giñ ci guddi jamono bi nga xamee ni nii mi ngi dem donte ne as as arab dana ko wax luy dem di ko wax luy dikk te mooy guddi it noonu la mel guddi day dem ko dikk di waat ci la nga xam ne muy suba jamono bi muy noyyi ay jamono ba muy fëll di génn te lii lépp di wone ne suñu borom yàlla jalla wa ala mooy ki am maîtrise ci li nga xam ne mooy temps mooy indi guddi mooy indi bëccëg ci nu mu ko neexe noonu nga xam ne noonu la amee kattan di changer temps bi di indi guddeeg bëccëg noonu it la amee kattan di yónni ay malaakaam fu mu ko soobe moo tax borom bi yéeféeri màkk yi ne lii du wax lu dul waxi nit kese ñii ne waxi njabar la ñii ne waxi jinne la suñu borom ne déedéet muhammad li muy nettali waxi yonent la bu tedd innahu la qawlu rasulin karim ca mooy jibril alayhi salatu wassalaam moom mooy wàcc ci moom di ko jàngal alquran gis ngeen jibril moomu borom bi mu ne borom kattan la mu tagg ko fii daanaka juróom benni tagg borom kattan la ca suñu borom nee na malaaka yi mi ngi leen bind ñu am ñaari laaf am ñu am ñett gannaaw ba yàlla di yokk ba jibril mi seen kilifa juróom benni téeméeri laaf la am yaa ngi dégg moo diqatu woon région xawmulut yóbbu ko asamaan dëppaat ko kon borom kattan la nekk ca yàlla koo xam ne ku ñuy jox gëdd la ku ñuy dalal la ca suñu borom yàlla malaakaam bi gën a màgg ki nekk kilifa malaaka yépp mooy jibril alayhi salaam yàlla moo bind yaxluqu ma yasha wa yaxtaar lu mu bind rek tànn na ci comme ni mu jëlee suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën ca la nga xamee ne nii moom mooy nit ñi loolu moom ixtilaaf amu fa doonte ne la gën a nekk dalil mooy moo gën ci la mu bind jalla wa ala ala kulli xaal suñu borom mu ne ku mu jox dalal foofu la mu ne mutain mboolem malaaka yi ay ndigalam la ñuy topp te suñu borom yàlla buy wax jibril lay waxal su ko defee jibril moom mooy wàcce ndigal li dem ci mikail na ko suñu borom nee na wërsëgi jaam yi ren nii lay demee malakul mawt ñii ñoo war a faatu daa di wax ku nekk ci malaaka yi la nga xam ne mooy sa responsabilité jibril moo la koy wax looloo tax ñoom ñëpp moom la ñuy àndal bu doonte ne suñ waxinu réew dañ naan c'est le chef d'état-major général des armées ñu ngi noonu bu ko defee suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni noo nit la nekk amin ay jibril du wax lu dul lu yàlla wax du digle lu dul lu yàlla digle du ca yokk du ca wàññi mi nga noonu amin kooku nag nga xam ne moo doon ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom ne seen waa ji du dof dof may kan mooy koo xam ne jinne day wàcc ci moom waliyas billah am nañu yàlla nattoo jinne di wàcc ci ñoom ñuy wax wax yoo xam ne nii wax yu amul benn cohérence waaye kii du du dof mi ngi noonu du dof suñu borom mu ne saahibukum mbokk yonent bi xëyul xëy rek joox biir makka kenn xamul démbam kenn xamul cosaanam waaye yonent bi makka la juddoo makka la yaroo ñu xam ay baayam xam ay maamam mu dund fa ak ñoom 40 ans moo ndax gaa yi kii waa makka xamuñu ko waay ah kay xam nañ ko ñoom ñoo ko tuddee woon muhammadul amin muhammad mu wóor mi ñoom ñëpp ñoo ko ko tuddee woon kon bu ñu xëyee suba ne daa dof borom bi mu ne déedéet saahibukum seen waa ji xam ngeen ne du dof de mi ngi noonu jibril moom gis na ko ci gox yi gisin bu leer mi ngi noonu te mooy gis ba mu ko gis ci kaw suuf fekk mi nga jóge ci xaaru xira jibril fees goxi asamaan yi ca la ñëwoon naan zammiluuni zammiluuni muur leen ma muur leen ma ca it moom day li nga xam ne mooy xaybu bi jibril wàcce ci moom amul lum ciy nëbb wama huwa alal xaybi bi danin ca it loolu la julit di war a gëm mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla joxoon xamal ko ci diine lépp wax na koy saxaaba mu safaanoog li nit ñi bari jàpp mooy gannaaw junni at nag ñëwaat na am ñu mu tànn jox leen loo xam ne moo gën lam joxoon ay saxaaba mbokk loolu safaanoonu na ak li yàlla wax safaanoonu na ak li réalité bi am la nekkoon diine jottali na ko ay saxaabaam saxaaba yee seedeel ko na jottali nga wa ma huwa al ghaybi danin mi ngi noonu te boo xoolee lu ci bëri aaya yi ko yàlla yedd bu doon yonent bi am na lu muy denc ko yooyu lay nëbb ñaati yoon la ko yàlla yedd ci téere bi mi ngi noonu abbasa wa tawalla di moom lañ mujj a jàng démb gannaaw ba suñu borom di di di ko wax wa taxsha nas wallahu ahaqu an taxsha yaa ngi ragal nit ñi ci nit ñee gën a ragal ñu ragal leen di ko wax yu ay yeddi yu bari di ko delloo gannaaw mais lépp yeneen bi da koo nettali mi ngi noonu suñu borom it mu ne lii du waxi shaytaan mi nga xam ne dañ koo daq ci yërmande yàlla mooy yéen fan ngeen jëm ana ban lay ngeen mën a indee ci na am lay ya day bari na yu ñuy wax waaye borom bi mu ne déedéet loolu lépp day neen la lii du dara lu dul fàttali ñeel mbindaa fan yi te mooy nit ak jinni la yàlla wàcceel alquran ngiree mu fàttali leen nu ñuy def ba jaamu seen boroom ku mu neex nag ci yéen tege ci yoonu njub ca niñ koy waxe daa iman mbokk julit booy ñaan yàlla ihdina siraat almustaqim xamal ni siraat almustaqim mooy téereb yàlla bi téereb yàlla bi ak sunna yonent bi koy leeral loolu rek mooy siraat almustaqim bépp yoon bu safaanoog téereb yàlla bi nekkul siraat almustaqim liman shaa minkum an yastaqim donte ne borom bi mu ni loolu du leen neex lu dul daa neex borom mbindaa fan yi du neex kenn nga jóg xam dëgg teg ci dëgg ba dee ci dëgg lu dul ku ca yàlla jàppale looloo tax suñu borom farataal ci ñun bés bu nekk ndax benn yoon déedéet ñett déedéet fukk ñett déedéet bés bu nekk lu mu néew néew fukki yoon ak juróom-ñaar julit dana taxaw ci kanamu yàlla ne ko yàlla ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim mooy xamal ñu yoon wu jub bi saxal ñu ci yoon wu jub bi bañu dee ci yoon wu jub bi ku mel nii rek moo nekk al mustaqim waaye ki ja ki nekkoon ci sunna di jaamu yàlla ba dara resolutu ko un jour mu dévier kooku nekkul ala siratal mustaqim mi ngi noonu kon ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla nañu faat ci siratal mustaqim te dugal ñu ci yërmandeem